récap du jour xamante ne de leen dañuy daal di ànd ak yéen jukki leen xibaar a ruusee ci bëccëgub tey jile ani woon confrontation bi bi ak Masses bi Adji Sarr ginnaaw bu mu dutee baaxaamu tuuma ko doon siif ba noppi di ko menacé loola ju xoon lu toll ci fukki nit ak kenn ku ci nekk ni ki démb nag lañ amal confrontation maanaam ñu boole leen ñoom ñaar bureau doyen des juges nañu ko aca jàmm ginnaaw bi nga xamante ni nag noppi nañ ku ci nekk rek génn nga yëy yàbbi ci mbir mi Ousmane Sonko def

xamante ni procureur de la république daat na ko koy laaj ak sax doyen des juges waaye nag laaj bi nga xamante kii di avocat Adji Sarr daat na ko koy laaj muy Maître El Hadji Diouf mu ne loolee du ci daal tontu ndax nag jàpp na ni place su Maître El Hadji Diouf nekkul woon nag sax mu daal nekk avocat ndax nag dañu koy giñ lu nekk sax li nga xamante ni avocat ba tax na Ousmane Sonko ma ngay xam ne ni mbir mi nag complot la te némb daal di nay leer ndax preuve yooyu sax ma ngay xam ne ni ànd jébbal na leen rapport militaire bi nga xamante moom leen waxoon que ni yor na ko ginnaaw kàddu yooyu yëpp nga xamante mooy jamono ji ñu bi ndax jàpp na ni Ousmane Sonko mi mu gis démb dafa tuuti loolu ci moom wax jooju nag la muy undu leerul ci bopp sénégalais sénégalais ñu addu wax ci leneen mu mel ni ci Ziguinchor nag préfet ba daal dinay décider rek yóbbu Ousmane Sonko moom maire bu Ziguinchor bi ca yoon la ko wund nag bokk na ci rek li nga xamante ni def na ko maanaam quartier yi nga xamante ni moom la di Ousmane Sonko daf kaa ngéntewaat tuddee ko ay turu boppam mu ne loolee nag moom la dina tax mu daal di yóbbu ca yoon ñu addu wax ci leneen li dem président de la république daal dinay rek dalal gaynde yi ñoom na leen rek joxu prime ginnaaw di xam ne ni jamono ji ñu toll nii ña ngay def ay pexe ngir rek jëm ko sàkkal pexe mu ne loolee nag da ciy dut baaxaamu tuuma nguur gi fi nekk ba tax na moom mi le ma ngay daal di àdduna lépp lu ko mën a dal rek nañu jàpp ni buñ ci génn nguur gi nga xamante ni rek moo fa nekk moom daal ma ngay di xam ne ni rek nguur fi nekk ñi ngi def seen kéem kàttan ngir rek mën a sàkkal pexe moom leneen ca Tiwaawan la ñuy dem ni ki démb nag takki der yi dañu daal di fees dell sa buntu kër Moustapha Sy la ko wund nag ñi ngi xamal ni Auchan bi nga xamante ni moo daal di jàkkaarloo kër sëñ Moustapha Sy la ñu doon bañ rek que am la ñu ko def moo tax rek takki dari wàcc fa fees fa dell ba tey ci biir xibaar yi ñu ñuy xamal ni sax ñoom ñi la ci guddi gi la ñu fa daal di uh, jóge ci fàttali Serigne Moustapha Sy moom mi leen nag moo bi nga xamante ni député bi di Amy Ndiaye moo yëkkati biir loolee ba fuutu ba ñaax ci ñoom jotoon jàmmarloo ak sax ki nga xamante ni mooy Amy Ndiaye njii bi ba mu daat ci jëlee ay gaañu gaañu nekk ca loolu hôpital ba jamono juñ toll na xibaar yu ñu jot añu ñu xamal ni yooyu lay député nag yoon mi ngi leen daal di rek wër ñu àddu wax ci moom mi ñu dénk wàllu sport ni ki dem ma nga woon ci assemblée nationale doon jàkkaarloo ñi nga xamante mooy député yi ngir rek défendre budget wu ministère am ci biir loolee nag moom mi wu ñu li nga xamante ni rek mooy science bi ndax moom mi le bi dafa waroon a dem rek gàttanu li nga xamante ni rek ñooy gaynde ci assemblée nationale di desandi premier ministre bi di Amadou Ba dina daal di rek jàkkaarloog député yi lundi yem ak bu 10 heures ci suba jotee ci fàttali moom mi le di premier ministre Amadou Ba ña nga fal samedi 17 bi ñu ñu ginnaaw bi nga xamante nguur gi fi nekk dindi woon na poste premier ministre ci atum 2019 bii ñu génn waaye mu mel nag njiitu réewum Sénégal daat nañu koy indiwaat ci biir loolee nag daat nañuy tab premier ministre Amadou Ba moom nag dina jàkkaarloog député yi niki lundi yamook 12 décembre 2022 ñu addu wax ci leneen Serigne Habib Sy yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci doxalinu réew mi moom nag ma ngay daal ñaawlu yenn bu koor gu jotee rek da ngay gis benn télévision boo xamante ni rek dafay mel ni rek kuy wujjale këru kilifa diine yi ba tax na rek mu ne bu koor gu jotee da ngay gis ab animateur boo xamante ni dafay daal di yor émission diine di invité ñenn ci tarixa yi mu ne loolee nag day dem sax bay day jaxase li nga xamante ni rek mooy yoonu tarixa yi ndax ku ci nekk rek bu sa morom waxee da ngay yaakaar ni yow lay waxal mu ne loolee nag daf koy daal di ñaawlu te day fay li nga xamante ni mooy diine ji teg ci di xam ne ni rek jamono ji ñu toll bu koor gu jotee da ngay gis ñi nga xamante sax seen place nekko ci ñuy animé li nga xamante nii mooy émission diine yi waaye dañuy jox ñu nga xamante ni rek xamuñu dara ci diine ñuy daal di rek animé plateau yooyu le ñu daal di wax ci leneen Mia Guissé ginnaaw nag ba mu daal di tàggoog jëkkëram ji moom la jamono ji ñu toll nii dafa mel jël na yoonu boppam de ndax nag ngi daal di wane ay photo yi nga xamante ni ñu ngi koy biiral si réseaux sociaux yi mu ànd ceeg waykat bi di Wally Seck mu mel ne nag jamono ji ñu toll nii ña ngay daal di waaj ab duo de moom Mia Guissé mi nag mu tàggook jëkkër ji yàggut lool gis nañ sax jëkkëram ji génn na ab single tegleel ko ko moom mi le waaye mu mel ni nag faale wut wax jëkkëram joojule ndax jamono ji ñu toll nii moom mi la di Mia Guissé jël na yoonu boppam ba tax na sax ma ngay daal di di yoo ak waykat bi di Wally ci Wally Seck la daal di dese nii rakkam ji di Mandiaye Seck ginnaaw ba mu daal di rek doon jàkkaarloog suñu naataangoo yi nga ko ci ki nga xamante mooy Wally di xam la ni rek jamono ji ñu toll nii kii di Wally dafa war a daal gëstu ñi nga xamante ñooy ay rakkam ndax nag jàpp na ni jamono ji ñu toll nii bu leen Wally Seck yiiroon wala sax mu daal di leen rek fàtt du ñu dem feneen bay bokk ci loolu teg di xam ne ne kii di ménagère bi di ñu naan euh, Baye Zal daf ko daal war ndax nag ginnaaw bi nga xamante ni présenté na ko Wally ba tey jile moom mi la di ménagère am bi Mandiaye Seck ma ngay xam ne ni daf ko daal di wan ginnaaw ba tax na sax day def ay mbir yoo xamante du ko yëg mu nekk mbir ma nga xamante moom mi la di Mandiaye Seck ma ngi koy daal di amee ndaw natu a TV lii moo gënoon nekk xibaar yi gën a fës ci bés